jit na la nga ko décrier Sutaka TV borom tagal bu baax bi macha allah. waaye tey émission bi dina neexaa ndax dañoo dalal ndaanaan di jë Demba waaye laata may ñëw si moom rek mu nuyu euh, xaay Sénégal mm-hmm. xaay dunia jitna lago ko décrier Hamara TV आपके बहन आपके दोस्त फाजी एंड आपको देखकर ये प्रोग्राम पूरा न जमाना के लिए और नया जमाना के लिए और दुआ कर रहा हूँ सबके लिए दुनिया की खैर खुशी di ñaanal ñëpp mbégte àddina tey nag Souka Mbaye mm-hmm. indi yaa soo tey daa dem Mbour waaw jëlal leen euh, suñu benn mbokku Indophile ñu mu ngi tudd DJ Demba ah DJ Demba nag nekk nekkoon sax feccikatu Inde bu mag ñëpp ràññee ko waaye te itam mu yëngu ci wàllum animation Inde yàlla may ko ci lool macha allah ñu am mbégte ak contentement dalal ko DJ Demba ñu ngi lay dalal ci télé bu mag bi di leeru jamono ak Solution TV. waaw Fatou Dieng maa ngi lay nuyu. Mm-hmm. Euh, di la ziar bu baax a baax. Mm-hmm. Euh, di kontaan euh, ci plateau bi. Mm-hmm. di nuyu. soxna Souka. Mhm. père Sanjoogu mhm. suma papa aussi maa ngi koy nuyu. Mhm. Eh, di nuyu aussi tamit euh, ñi nga xamante ne ñu ma toog seen biir kër di seetaan. Eh, maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di am contentement ci dalal bi. ñu am mbégte ak contentement nara waxtaanee wàllum fecc Inde wàllum animation Inde ak milieu indophile. DJ Demba ñu gis la fii feccu bale jamono yaa ngay fecc. waaw lii jamono bi ñu doon euh, fecc la. parce que soo soo gisee ñu ñu ngi boole Gambie ak Sénégal. parce que jamono boobu ñun dañoo dañoo demoon Gambie. Mm-hmm. Euh, lii ci ndimbalu per Pam. moom moo ko organisé woon Père Pam bu DTV. Mm-hmm. Euh, maa ngi koy nuyu au passage di ko mm-hmm. kontaane bu baax a baax. moo ko organisé woon. invité woon waa troupe d'Osti ñu jóge woon Mbour. ñëwoon fii fekkoon Gambien yi ñëw fii waaw Gambien yi bi ñëwee bu fekk ñun ñu ngi Mbour. ñu invité suñu waa troupe troupe d'Osti euh, pour ñu ñëw présenter seen suñu fecc. ci lañ présenter suñu fecc. turu turu dosi dosi bandan bu mbuur ah. dosi de l'Inde. Euh, dosi de l'Inde bu mbuur. waaw euh, maanaam mbuur euh, dilcuralia ak dosi defe naa ñoo. fa nekk ñaari waaw mbuur dafa am ñaari ñaari troupe. Mhm. dafa am dosti mhm. am dilcuralia. dilcuralia waaw mooy bu ñoom waaw mooy bu ñoom bu sukumaar. Mhm. waaye benn lañ. waaw waaw ñu nekk fee ñun ñooy bokk di toogandoo di naanoo ataaya di kafandoo. di defandoo lépp. voilà Boubs Soukumar bi nga xam léegi actuellement artiste ndaanaan bi mu ngi suivre mhm. Mhm. waaw mu nekk lu am solo ambiance bi nii nga doon ko dund ay jamono mhm. ca Mbour ca maanaam euh, fan la woon Mbour ngeen ko tourné wala dakaar fii waa lii Dakar la waaw maanaam jotaayu indu démb tey noo ko doon dundee par rapport ak tey jii ndax jamono bi yaa ngi nekk di dem ma di fecc mhm. mais fecc bale la indi wuñu fecc individuel bi parce que mhm. élément yi du fi xej mhm. mais fii nii lan ngay gis boo koy seetaan maanaam lan ngay yëg en tant que ki nga xam ne kat nga woon bëgg indu laata ñu ñëw ci côté animation bi waaw dafa may fàttali ay souvenirs yu bare bare bare bare parce que euh, ay jamono bi ma ciy nekk boobu mën naa ne euh, doyoon na waar trop ci sama côté parent sama yaay buggul woon que ñun ay lañ li mu gënoon a contre mooy nga taxaw sur scène di fecc nit fekk la fa yëkkati xaalis may la mm-hmm. léegi da ko daan dégg nag dégg na dem ba day fecc day fecc indu mm-hmm. mu koy dégg mm-hmm. di ko dégg di ko dégg ba benn bés am benn maire bu dëkk sama koñ euh, maire bi daal di ñaan tuur bi mu ko ñaanee mu ñoo def ko suñu buntu kër li gën a doy waa suñu buntu kër merci te dama bokkoon ci leader yi nga xamante ni maanaam Euh, doyoon na waar daal ci jamono boobu. Mhm. ah maire bi alors tànk neexoon na temps ci jamono boobu quoi <laughs> léegi maire bi mu ñaanee tur bi. Mhm. ñëw def ko suñu buntu kër. sama xaritu yaay la. Ah, dem ba amoon nga xew. <laughs> xew ma reyoon na. Ah, léegi bon ñu dem ñëw tant tant bi baas xam nga rek. ñu leen indi fii lu mel bi mhm. defar affaire yi. sama yaay nag waaw lu xew fii. Ah. ma ne ko sama gars yi ñooy ñëw fii def fi programme mu ne ma bokkoo ci <laughs> ma ne ko ah. bokk gu ma da waaye dafa mel ni daal ah. mu noonu daal Demba nooy laye loolu <laughs> loolu daal mooy wax yi léegi nag bi nga duggee ci jataay bi nan la sa mère réagiré bon dama ko invité mu ñëw bi ma xamee ne mënul ñàkk grand pipa maa ngi koy nuyu moom euh, mm-hmm. li ñu doon tey moom la mm-hmm. pipa pipa waaw pipa bu rajo Dunia maa ngi koy nuyu bu baax baax a baax a baax mm-hmm. tey li ñu doon tey euh, moom la ma invité ko mu ñëw ma teg ko ci kanam yaay toogal mu toog ñu def première bale dugguma gars yi ne ma non far force damay dugg Pipa ñëw ba sama booy mu naa ma ne ko carrément faaw nga fecc mhm. ma ko mais sama yaay bëggul mu ne ma non loolu garaawul mu dugg fecc mais li may feccee may billaay lu ma musul dal ci seen juróom dama daanu ci biir seen ndeysaan nag maa ngi xool mère bi mhm. ak sama frère yi ma wër mhm. ak sama famille yàlla xam na ko dama teg deux pas trois troisième pas bi dama daanu daf la ma daloon Thiès rek. Ah. yàlla xam jaxasoo ci biir géew si après. te musuma dal bon après. Ah. mais bu ñu ne ma jógal garaawul xam naa ne yii moom affaire xale la rek après bi mu waxee jógal garaawul nag. éclaté ma firi nag. Ah, après fecc mu jeex. mu woo ma ci néegam ñëw mu ne ma carrément euh, da ngay bàyyi. Hmm. Mm-hmm. man ko et pourtant mais dem naa ba commencé sori mu ne ma non il faut nga bàyyi ma xam ne su ma nekkee mbuur mm-hmm. su ma restee mbuur du baax mm-hmm. ma quitté mbuur ñëw Dakar ngir mën a fecc non ngir mën a bàyyi ah, te nee na la bàyyil. te nee ma bàyyi nga bàyyi. te faaw ma bàyyi te mënoo toog mbuur sa morom yi di fecc nga di ko dégg. voilà léegi bu ñëwee bu ñëwee Dakar yaakaar na bàyyi Dakar gën a wulee ñaay. mais day toog nii woon Dakar pour bàyyi di jiite mais doon toog nii <laughs> yàlla xam na ko bu dama bàyyi woon carrément mm-hmm. toog naa Dakar benn un an mm-hmm. sama liggéey laa géré mm-hmm. mais dama dem ba ci biir ma dox ba dajawaat ak euh, euh, Père Sada Sada Ndiaye Père Sada Ndiaye mu ngi maa koy nuyu tamit mu ne waaye booy looy def fii ma ne ko léegi damay liggéey mu ne fooy liggéey ma ne ko Mandel Couture Mhm. dama yor suma atelier en même temps mhm. Mhm. ma ne ko mandil couture laay ñëwee mu ne ma ah bon bàyyi nga indo ma ne ko bàyyi naa mu ne ma non il faut ma am sa contact mu jël sama contact après toog ay un mois deux mois mu woo ma téléphone na <laughs> ma ñëwal oxygène na ma ñëwal oxygène ma dem seen ñëwal oxygène dem oxygène fekk fa ñoom taal Mm-hmm. fekk fa gars yu bari ñu toog nag ñu waxtaan ñu ne ma non il faut que nga commencé di jouer waat man leen non maire bi bëggul ñu ne ma non du ko yëg affaire mm-hmm. yooyu mm-hmm. xam nga rek virus bi dugg na ma ma nekkaat ci ah. di fecc di fecc di fecc ba quitté ci ndeytaal mm-hmm. dem groupe ajaa Kumba Diop gis nga ñii nga gis ni ñu jógee Gambie mm-hmm. Mm-hmm. bi ma demee bi ma demee groupe Adja Kumba Diop ñu waxtaan ma merci beaucoup ñoom it maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu tamit maire Adja Kumba Diop mu ne ma da nga fay luyee ma ne ko mu ne ma génnal ci li nga luyee te ñëw dëkk sama kër moom noonu lay ndax la ndax indo bi ma woo sama yaay ne ko carrément indo bi mu may tere tax na fayatuma location <laughs> mu ne ma non bàyyi Mhm. ba tey bëggul nga ba tey a maanaam mhm. mu ne ma non il faut nga bàyyi mhm. ñu jógee foofu euh, dem Gambie loolu moom indo moom yóbbu Gambie bu ñu bisee Gambie laa neex affaire bi daal faaw ma bàyyi parce que mer bi buggul te mer na te bugg ma li def loo xam sama yaay buggul ma ne garaaw sama papa moom garaaw la moom moom day wax góor nga lu la neex defal boo tollee di nga ko ba après ci noonu ma bàyyi affaire bi définitivement nag. Mm-hmm. dëgg la am am na solo bàyyi ndax sa waajur moom moo ko bëggul. tey nga bàyyi eh, fecc bi. Mm-hmm. Euh, muy loo xam ne lu rafet la. Mm-hmm. te ndaysaan jeunes yu bari dund nañ lu ni mel ci seen euh, wàllum aar. bàyyi ba ci man mi sax bokk naa ci ñi nga xam ne bàyyi nañu ndax parent yeeg yu ni mel. te muy lu am solo waa te muy lu am solo aussi. Euh, di nga jóge ci fecc bi. nekk ci animation indu ngay mm. animé tey mm. euh, rajo bu nekk Mbour ah, rajo bi nu mu tudd Sindia la nekk Sen FM waaw Sindia FM nga fay anime animé waaw waaw waaw ñëwal ñëwal parce que dama bëgg euh, parce que sa yaay visionnaire la waaw parce que endo bi man bi ngay wax. yëpp maa ngi càmbar. oxo oh, oxo oh, oh, parce que da nga wax ne <laughs> da wax ne. xamoon ñaari fan non non dafa wax ne. Eh, dafa wax ne. Mm-hmm. Eh, fi ma toll nii tey maa ngi doon xaar fu mu toll ci endo bi. Mm-hmm. waaye mujj na ba kon tolluwu ci fenn man bi ngay wax rek maa ngi xool foo toll ci endo bi quoi. sa yaay visionnaire la parce que ah. tey am na ñu bari ñoo xam ne bi ñuy tàmbali def benn aar seen yaay da leen mm-hmm. wax déet mm-hmm. <laughs> waaye parents yi nga gis mère yoo xam ne xamuñu ci li nga ne mm-hmm. nga continuer ba mu gis ni njariñang ci ñu ne ah lii de bu ma yëgoon du ma ko ko tere comprendre nga mais moom li mu la doon tere ci njalbeen ga est-ce que jàppoo ni am na raison tamit parce que parents yi am na ñoo xam ne ñi ngi tere mais yow li mu la doon tere est-ce que yow tamit indo bi tardel na la ci benn côté. parce que mënoon a. bi fecc bi la bëggut. waaw fecc bi la bëggut mhm. mais tey fecc bi tey fecc ba ma doon def. waaw tey moom indil tey ma dem ba di animer à la rajo. Mhm. mais animer ànd doxut. waaw ci yow ci li nga jàpp yow. waaw <laughs> ci li nga jàpp yow. <laughs> ci moom xam nga boo tooyee xam nga animé animé indo doxul. saakaay déglu ma animé <laughs> indo rajo peut-être yow Euh, mën nga am ni peut-être am nga beneen style quoi. parce que yor nga am na loo xamante peut-être artiste mi ngi nelaw ci yow quoi. loo xamante ni ngi nelaw ci yow quoi. Mm-hmm. peut-être boo délogé woon loolu jóge ci indo ne ci leneen mën nga romb sax peut-être. di nga toog benn public ngeen. ñii màggat nañ ñii ma. ah yàlla yërëm mais mais indo loolu la. waaw léegi xaaral xaaral waa léegi xaaral maanaam kii la pour jeex renouvellement amul waa léegi xaaral ni ma la gisee nii sax nga nekk jeune di xuus ci indo dama ne kii ci danger la ne ah, ah, ah, bàyyi leen indo léegi man ma wax waaw waxal mënuma may ma wax dem si yàlla ne ko bàyyi indo indo baaxul mu ne ma du ma ko bàyyi <laughs> mais moom bu ñu tolloon mënu ko bàyyi mais yëpp nga a saa xam nga ne end bi amul relève. Mm-hmm. waaw am na relève. non amul relève. non xaaral man ci relève bokk. man ah. na samay samay morom centaine de yoo xamante ni ñu ngi ci suuf ah. bi muy dox dëgg. xoolal pour ma xoolal cinéma Inde a xam nga léegi moo tax moo tax Inde cité. kaay ma wax la xam tey boo ko tuddee cinéma. déglu ma bu njëkk ba bu njëkk ba faatoo ngi nii mm-hmm. boo mësaan a dem di dugg ji film indo bu bee film bu génn. mais rang bi bul xam. mais léegi. mais ba tey Inde kenn seetaanatu. mais mais loolu dañ daan jaay sax ay kasetu Inde comme tey ni ngay jaayee ni album dañ daan am sax album Inde ngay dem di jëndi ji ay koto di taf. waa léegi ñaan la Aminata Bacho nañu ni Dermendra ngay jënd di taf comprendre nga album Indo sax dafa amoon Indo dafa sori woon. dafa am jamono changé Indo dafa yow da ngay déglu. waaw wax ba pare da ngay déglu. Ah. da mhm. ñoo ngi ni parce que tey jii nii tey. Mhm. Mhm. gis nga ah. nga dem Kaolack. waaw am na ay animateurs yoo ay jeunes lañu. nga rajo yëpp jël nañ animateur indo ah. yi léegi. Mm-hmm. nga dem euh, Saint-Louis. Mm-hmm. am na ay animateurs yoo ay ndaw lañ. ay xale lañ. Mm-hmm. gis nga Sadio naa la wax dara de bul jàpp ne sama yaay li mu wax nii baaxul baaxul tey. mais tey su ma toogee di animé rajo daf may woo la téléphone ne ma kontaan naa. Mhm. ma ñëw mu ne ma déglu naa la. Mhm. li nga def neex na trop. mais lii moom a gënal fecc bi. waaw fecc bi la bëggul woon mais carrément ñun ay xalpulaar lañ. Mhm. ñun ay xalpulaar lañ li nga xam mooy xëy dem liggéey wàcc tëdd loolu maire bi xamul. bàyyi leen culture indo te defal culture alpulaar. kii def culture séeréer. xoolal ngeen nekk fi topp indo yi. duñ ko duñ ko indo yi duñ ko ñam di ko ba de. indo yi mooy mu seen président ba nu la président indo président en Narendra Modi. Narendra Modi mu <laughs> ngi noonu di di sànq foofu julli di. di leen def lu ko neex moom Narendra Modi. di ah, yow nga am ñaari ñaari euh, cas yoo xam ne ngi mhm. parce que am nga alpulaar. mbuur la doon animé. Mhm. laa nekkoon de. waaw waaw fa ko dàqee. Mhm. dàq. <laughs> <laughs> wër na yàlla xale kenn dàq ma mbuur da nga am yooyu am ñaari euh, parce que am nga alpulaar am nga dégg nga tuuti indo fi mu ne yow euh, booy anime da anime animé da ngay booy def ci li nga xam ne moo di indophile bi mm-hmm. da nga koy defee ci euh, li nga xam ne moom moo di indo mm-hmm. wala da nga koy def ci li nga xam moo di alpulaar waaw xam nga tey jii nii par exemple tey su ma demee. Mhm. di animer li ma li ma ci mën a traduire. Mhm. en wolof. Uh-huh. loolu laa ko mën a traduire en pulaar. ah d'accord bu ko defee tamit bu ko defee tamit ñi nga xamante ne samay mbokk xalpulaar lañ. jël ko comprendre dina leen dina leen intéressé. parce que su fekkente ne da nga nekk doomu xalpulaar te munoo wax sa làkk kooku amul sens. dëgg la. te man dama mm. dégg suma làkk. macha allah. moom laa nàmp. dëgg la am na ñaar loo xam ne mu ngi ci yow te. Mhm. tey suñu biir kër soo fa duggee du ñu xolof. Mhm. paa bi bu nee salaam. kàlla ko bii bii maane rek ngay dégg. Ah, kàlla ko bii bii maane tan ngay wax. <laughs> ar njaxeen ar njaadeen ar mbari bi ah. nangam nangam. waaw ah, loolu lu baax la. Mhm. sa paa bu si biir kër gi. dootoo da ngay dégg booy ne. wifi na. wifi bi <laughs> gi ñëw non. parce que tamit mm-hmm, mm-hmm. Euh, musique sénégalaise fekkente ñëpp dañoo màbb jëm ci musique sénégalaise. Mm-hmm. mais boo gënoon a yaatal. parce que. du ñàkk ni euh, leneen mu ngi nalaw ci yow. ah ah xam nga nit des fois bu demoon ah, ci leneen mu dox. peut maa ngi nuyu euh, maa ngi nuyu la grand Tafa Diagne. parce que macha allah télé woo wax quoi am na Tafa Tafa Diagne comédien. Ah, non la. Ah, souvent dañuy waxtaan. mu ne ma man de. moom da doon animé avant may nekk ci rajo Dunia bi ñu may formé. Mhm. moo Pipa ñoo doon defandoo émission. DJ Pipa man mhm. Pipa moo ma formé parce que li waral loolu mhm. kooku waaw tooñu ko de Pipa dafa aayoon mi ngi woon. loolu ko ci yoon ba léegi suñu daan dem programme. dama ñeme woon micro. au lieu ñu duñ am ku présenté. artistes yi. léegi damay ñëw jël micro bi. wax présenté wax wax wax grand bi ci la ma gis ne ma non. comme que sa yaay nee na nga bàyyi fecc bi. ñëwal ci animation bi. ñëwal ma defar la formation accélérée. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw duniyaa. waaw ma quitté Dakar. ndax ñàkk sama liggéey foofu ma waaye foofu ñu ma doon fay xaalis bi wax tàll mandel mhm. man téyër laay def mhm. mandel couture ba léegi yaa ngi ñëw ba léegi maa mhm. ma sol nii <laughs> léegi ah, ñëwal si sa bopp waaw waaw lii ma sol yàlla xam na ni maa ko ñëw démb si ngoon yàlla xam na loolu chemise dëgg macha allah macha li nga li nga so rafet na mais fi may ñëw mooy tey animation indu tey naka nga gisee animation tey bi nga xamante ne nekk nga ci ma nekk ci euh, par rapport ak animation yi fi doon daw mm. par rapport aussi maanaam euh, langue inde bi nga xamante ne ni tey jii nekkul lu yomb ndax mm. Dj Demba day làkk indu mm. wala Dj Demba day débouré comme yeneen animateurs yi rek comme man comme keneen keneen. waaw xam nga nag jël ci làkk jàmbur. Mm-hmm. nga nga foor ci de trop. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. mën na nekk parce que tamit maa ngi gërëm aussi tamit le professeur Lamine Mbodj. professeur Lamine Mbodj waaw. xam naa yow xam nga ko waaw day jàngale. làkk indi bi da wax comme kuy naan ndox. waaw moom ni mu koy jëlee noonu la ko joxe waatee waaw le grand Amadou Mar da waaw waaw moom tam lalal nañ ko fi waa dañuy jox ay cours mhm. père Pam mhm. grand Pam waaw père Pam bu dee TV père Pam no xaaral booy nekk 2S nag kooku Mamadou Kane fa laa jëm fa laa jëm mais kooku bi ab bi bay de yi ñëwee léegi <laughs> gis nga Sadio bi bay de yi ñëwee Amadou Badiane yàlla ko yàlla yërëm boobu da nga ne Amadou Badiane li mu doon wax ci indo yëpp da nga ne Amadou dese naa dégg indo léegi bi kii ñëwee léegi euh, Amadou Badiane bi mu doon wax laaj ko day wax kii pour bu laaj ko te Amadou Badiane ñun moom lañ jëfoon mooy yaru indo ndekete yoo après booy boobu man boobu après saa xam ni ndekete dégg na indo mooy ki nekk ki nekk ki nekk deux waaw ñooñu ñëpp tey waaw euh, dañuy dañuy encadré ñoo ñoo leen di encadré. ah mais pourquoi pas mais mais foofu bu baax euh, Amadou Badiane déggoon na Inde. mais moom euh, langue dafa jàng Inde dafa 116 langue la. 116 waaw ñun liñ ci dégg. langue nationale bi lañ ci dégg. yeneen ah. làng yi dañ ciy co cof tuut mais euh, moom su ma juumul Inde Bengali la déggoon maanaam beneen xeet la ci biir ah. Inde. ah beneen Inde la waaw Inde boobu la gën a dégg. Ah. par rapport ak ñun ni ñu déggee langue nationale. mais Amadou Badiane moom da doon firi way. am na am na way yoo xam ne way yooyu yan way la. da wax naan yow yow yàlla yaa ñu may lekk yu séeréer xam nga séeréer dafa am. waaw séeréer saa benn séeréer séeréer séeréer extra extra. séeréer siin et cetera alpulaar am tukulóor am. Mm-hmm. ah pour firdo am. Mhm. Mhm. kenn ku ci nekk li nga ci dégg ci loolu ngay wax. mais est-ce bi leen war a jox jox na leen ko. Mhm. dans les gis benn une heure de temps maanaam langue indo bi animation tey. waaw tey xam naa temps bi ah, intéressant na quoi. waaw waaw waroon na ñëwaat te dama leen non non tey ni ma ko gisee tey. mooy ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci branche boobu noonu. bu ñu waaw bu ñu may doole Sadio mi toog di wax ak ñu mel ni moom. <laughs> waaw ñu mel ne Sadio. <laughs> waaw ñu mel toog suuf di dagg affaire bi. waaw man dama nangu lool. ñu mel ne Sadio toog naan indo bi doxul indo bi baaxul indo bi nii te fekk moom boo demee biir këram bu toogee indo lay siiw. Ah, ah. ku <laughs> boo ma ko waxaatee ma yóbbu la ci yoon de. xaaral ma wax la xaaral ma ma ko waxaatee ma porte plainte la. kon tey di nga kon tey di nga <laughs> dama koy ñu mel ne mhm. mhm. xamante ni ku baax la na wax yàlla. Mhm, mais boo demee biir këram moom bu toogee. ah munoo wax a wax bu du seetaan man mii waaw dëgg la nekk. waaw xaal daw xaal daw man indo jamonoy xale lañ ma kidnappé woon ba ma rëccee laajee pare. laa xam ne lii ay caaxaan des ci yow nag dafa des ci yow dafa des ci yow dafa des ci yow sans la dëgg la sans la day daw dëgg la xam naa ne suñu temps bi dem na ci jeex lan nga bëgg a profité wax lu ma la laaju rek nga tàggatoo waale ko di jël waaw xanaa rek di kontaan ci yow wax ni eh, kontaan naa bu baax a baax ci mhm. dalal bi mhm. maa ngi leen di waaw foog mu ñëwaat foog mu ñëwaat ndeysaan maa leen di bëggee bu baax rawatina mhm. suga mi nga xamante ni doon nañ ko déglu ndeysaan fële ci diwaanu Mbuur mu nekkoon eh, mu nekkoon tamit ndaanaan boo xamante ni da doon doxal ah. da doon doxal bu baax a baax a baax. 9h ba ba midi rajo yu Mouride foo jàpp moom lay doon. donc ñu ngi koy jaajëfee bu baax a baax di ko kontaane di kontaane tamit per sa. papa aussi maa ngi koy nuyu. da koo bay tàggal da ko waxal ma loolu. <laughs> est ce que loolu la. sànq ba léegi ñoom ñaar ñoo teel a sa foofu. waxal waxal ba lii. kay yaa ba leen toppale. gis nga moom mi moom wax naa ko sax moom mi. Euh, dama ko dama ko doon suivre. loolu yàgg na nag mos naa ko wax Fatou ne ko sa waaye dama ko doon suivre. dëgg dëgg la dëgg la moom it mm-hmm. ndeysaan euh, mm-hmm. jamono dama doon liggéey bi may nekkee fii nii. Mm-hmm. dama doon jógee euh, Grand Yoff. ñëw bu buntu Walfadjri am na ku doon jaay fii café ci pot lamb bi waaw ah, bay faal bay faal ñu jaay ma kaasu café ma toog jàkkaarloog waa Walf mun naa mm-hmm. limal kenn par kenn ñi fi nekkoon jamono boobu xool leen ba mu neex ma ne garaaw ñii peut-être dinaa mës a mbëkkante ak ñoom te yàlla dogal na ko peut-être dinaa mos a mbëkkante ak ñii. ndeke boobu lii yàlla dina ko doge mais ci biir loolu nag. nuyu sama jabar bu baax a baax. Eh, ah. Ah, eh, sama soxna maa koy nuyu. Mm-hmm. baax baax di nuyu sama yaay. Mm-hmm. di en tout cas sama soxna la loo ci mën di dégg jàppal ni euh, kontaan naa ci moom. parce que tam yombul. yenn saa yi da ngay tëdd ba benn heure mooy waajee tëdd. ñu mm-hmm. woo la ne la. waa rajo bi woo na la kaay def na te nga am beneen séeréer bu mel ni Fatou Dieng. voilà moom beneen séeréer bu mel ni sama séeréer la ci pet. <laughs> en tout cas daal dañu koy dañu koy sama yaay. <laughs> Mm-hmm. sama famille. waaw ñëpp daal ñëpp bàyyi ma kenn. macha allah sukkuraan. waaw am na am na solo di Demba ñu lay jaajëfal. naan la sa semise baax na macha allah. li nga ñëw pour man pour man da nga koo jële jëlee fële sax ndekete yow yaa ko ñëw. kon kon am na solo di am mbégte ak kontaan ndaxte nag euh, tàmm nañu invité am na démb rek maa ngi ko wax ma ne ko mm. am na ñoo xam ne depuis bu yàgg da nga leen di bëgg invité mais dañuy ragal comme li ñu lay wax dañuy ragal dañu ragal mm. waaye moom dama ko woo rek bërki démb rek. mu ne ma dinaa ñëw suba teel la fi ñëw ay 11 heures fi ñëw te loolu yombul mm. waaw mooy doxal milieu indophile ku bëgg milieu bi dox rek da lay ñëw ci plateau yi ñu waxtaane milieu bi kon di jaajëfal Seydina Issa Laye uh-huh. ma ca Yoff ah toog macha allah ndaxte nag moo ma defal li génneel ma logo wal fajri bi dina ma nag macha allah waa wala uh-huh. atu sport kon maa ngi koy jëfal xam naa ne toog dina génne uh, numéro téléphone bi affiché ko gis ngeen nii macha allah bu ma neexee génn ci mbedd bi nekk benn chinois nii daan nii <laughs> ah ndax Laye Makhtar Laye kon di ko jaajëfal sama mag ja ca ba mercredi mercredi prochain Souka Mbaye di jaajëfal di jee dem ba mu. merci beaucoup may lay jaajëfal